إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom ñu ngi bàkk di ko kañ ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi ñu ngi tuub jëm ci moom ñoo ngi musulu ci sunu bon bani bakkan ak sunu ñaawtee fi jëf ñoo ngi seere ne képp ku sunu borom gindi kooku aji gindeeku lay doon ba faw te dara mën ko koo dëngaloot ku sunu borom bàyyee ak boppam ba mu sànq kooku aji sànku lay doon ba faw te dara mënatu koo gindeeti nu ngi ñaan sunu borom mu boole ñu ci jaamam yi muy gindi dellu siwaat nañ ci ron keppaaru xam-xam ci ron keppaaru alquranul karim ci ndimbalu sunu boroom ak tawfiqam ak yërmandeem ak mbaaxam sunu bind bi ñu mujjee def ci dars bi ñu ngi taxawoon ci mujjantaluk suuratu ruum nga xam ni juróom-benn fukki laaya la borom bi defaloon na tawfiq ba mu jeex kon tey ñu ngi tàmbali saar wi di suuratu luqmaan sunu boroom subhanahu wa taala di wax ni acudu billahi alsamici alcalimi min alshaytan alrajim min hamzihi wa nafxihi wa nafsih bismi llahi arrahmani arrahim alif lam mim tilka ayatu alkitabi alxakim هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وأنزلنا من السماء ماء وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين fukki laaya yooyu ak benn mooy nekk sunu bind ci kàttanu sunu boroom saar bi sunu boroom mi ngi ko tuddee waa bi ñuy wax luqmaan alxakim luqmaan boroom xam-xam yi am nañu juuyoo gu yaatu mooy kan ndax ab yonent la woon wala ab waaju baax la woon ban jamono la doon dund ak lan moo nekkoon ay yëfam loolee dama jàpp ni dees na ko jàppal idda ba bind bii di ñëw nga xam ni ca la ñuy tàmbalee ca wa id qaala luqmaanu libnihi wa huwa yaizu su boobaay dees na ca leeralaat yenn ci biir yi nga xam ni sunna saxal na ko wala ay mbir yoo xam ni rot na ci làmmiñu borom xam-xam ni yii baat kat toxal nañ ko jëlee ko ci luqmaan ndax xam ngeen luqmaan ku kéemaane la woon luqmaan kéemtaanu sunu borom la woon maanaam dafa mel ni rëbina buy xel xikma nu meral mën a meral luqmaan alxakim moo tax noonu toowu lañ koy jox luqmaan alxakim borom bi defaloon na ko ci xereñ ak xikma loo xam ne kiimtaanu suñu borom la woon bind bii di ñëw insha allah dinañ ci leeral aslëf suñu borom tàmbali saar wi li mu tàmbalee yeneeni moromam ci ay saar nga xam ni moom la ñuy turee tuddee alxurufu almuqataa fi awaili suwar alxuruf almuqataa fi awaili suwar saar yi nga xam ne dafa tàmbalee ci baat ya gën a tuuti comme sood qoof nuun xaamiim topp ca di ñaari xaraf alif laam miim topp ca ñett alif laam miim raa wala alif laam miim saad topp ca noonu nga koy tafee ba yegg kaaf haa yaa ayn saad nga gis ni alxuruf almuqataa tàmbalee ci benn jëm ñaar ba ñett ba ñeent borom bi da koy tàmbalee ay saaram lii nag ak wàll la ci wane ijaazul quraan mooy alquran ci boppam da di làkk bu kéemtaane woo xam ni ki ko wax mooy borom jaam yi bu ko defee da ciy feeñal ak xereñ akub mat akub man luy wane ni kat baat yi ci lañ rabbee alquran te kenn mënta fexe ba jël ci baat yi rabb lu mel ni alquran loolu ci mu'jizaat alquran alxaalida la bokk alif laam miim moo kii ko jiitu wax naa ko waxaat ko jërut baamtuwaat ndax saar yi jot a jàll yëpp tudd naa ko ca te bu ma cay wax dama cay wax la ca alxaafid ibnu kasiir wax ca tàmbali suratul baqara di wane ni abu bakrin ñoom ak omar ñoom ak kibaaru saxaaba ñoom danañ daan wax ni baat yii day sunu borom moo xam lam ca nam ak leeral yi nga xamante ni leeraloon naa ko ci jërut baamtuwaat waaye daal liñ ci mën a xam rek mooy day wane ni alquran ji kat ci baat yi mel nii la rabboo sunu borom subhanahu wa taala mu ni ka joxañ bii ñu lay joxañ ba tax ñu tàmbalee alif laam miim tilka joxañ booba ñuy joxañ nga xam ngeen ni zaaka dafa am zaalika am haada am haadihi am tilka am yooyu yëpp bokk ci asmaul ishaara muy tur yi nga xam ni bu ko arab waxee daa am lu muy joxañ tilka tilkum zalika zalikum hada haadihi yooyu yëpp ay asma la yoo xamante ni arab bu ko waxee daa am lu muy joxañ tilka jii nag la ñuy joxañ mooy téere suñu borom suñu borom mu ni tilka loola ñuy joxañ di ko bëgg a faram-fàccee ka leeral mooy lan suñu borom mu ni ayatul kitaabi mooy aaya yi téere bii di alquran waaye alxakim ji nga xamante ni ju xereñ la suñu borom day war ni alquran kat joxañ bii ca jëm joxañ la boo xam ne dafay bàyyi loo waat xel yi lii ñu joxañ lu màgg la téere la boo xam ne bu tedd la parce que mi ngi bàyyi koo ci ku tedd téere la boo xam ne bu xeriñ la parce que mi ngi bàyyi koo ci ku xeriñ moom suñu borom kon alxakim ayatul kitab aaya téere bi alxakim aaya yu xereñ la téere la boo xam ne téere bu xereñ la xereñ nag mooy lu jotut doo ko def te loo def daa fekk jot na te loo teg fam ko teg fala te loo deful rek daa fekk warta ñëw alxakim man yadau al umura fi mawaadiay mooy koo xam ne mbir yëpp da koy teg fam ko war a tegee bu wax jotut du wax bu def jotut du def te lu jot mu def ko lépp te lu mu defit nag noona la bokk na ci liy wane ne alquran lu xereñ la ndax wax naa leen ba tàyyi ni xikma kéemtaan la boo xam ne sunu borom a ko moom te da koy maye xam ngeen ni bokk na ci xereñ def gi sunu borom def ponkalum nag ponkalum fas am doole lool mën laa faagaagal yow doomu aadama sunu borom joxu ko mu xel mu jox lam xel yow bëgg la cax doo xam ni daanaka boo boo ko bu ma xëy mu daanu mu mën a def ay technique ba daanalaw nag mu mën a def ay technique ba ngalaab aw fas def ak luxuraat karde kaw ak karde suuf ak ak arrière rek utub ngalaab yor karwaasam te fas yu bu ko yëq muy dee loolu ci xereñe gi la bokk ndax suñu borom ba muy bind loolu daf ko bind ngir doomu aadama yi xalaqa lakum ma fi l ard jamia xereñe gi moo tax mu defee ko noonu di taw heure bii di bàyyi heure bii di naaj heure bii yooyu yëpp bokk na ci xereñ gi bokk na ci xereñu alquran mooy alquran dafa ràbbu ay baat benn téere sël ci àddina bi boo xam ni chaque jour nga di ko jàng te bu dee ngëm yàlla mi ngi ci yow da nga koy nam amul benn wax nag bu ko am ci kaw suuf gis nga ñun ndongo yi sax xam nañ ko téere boo xës liir benn yoon même bu dee téere xam-xam sax boo koy liiraat doo yëg caf ka ba nga doon yëg parce que day fekk fi nga romboon rombaat nga fa alquran moom dañ ko war di jàng bis bu nekk di ko jullee bëccëg di ko naatilaa guddi ci am waxtu boo ci jàng par jour gis nga su fekkoon ci ni mel na nan wala mel 24 heures sur 24 ñu ngi jàng alquran te lu tax mu sàppile mukk loolu xereñe gi moo ko waral kooku benn la bokk na ci xereñe gi mooy alquran gi benn baat bu ca bokkoon du ci jóge benn baat bu ci bokkul du ci dugg te loolu ba keroog àddinay tukki la garanti boobu la am loolu xereñ la bokk na ci xereñ gi mooy alquran dafa nettali ay xisas xol xisatu Muusa nga xam ne gars yi borom xam nañu kaada Muusa an yazhaba bi sulusi alquran Muusa moom kenn tuddiwu ko saar waaye tuuti comme bu mu xaajoon alquran ñetti xaaj moom day jël ñetteel ba dem yoon wala moom bi solu sayul quran sax moom alquran bu ñu ko xaajoon ñetti xaaj ñuy séddale Moussa bi amul saar woon ko tudde moom bu dikkee kan ñu jël ñaari xaaje dem yoonam moom alquran bi daal ko fépp ñu ko tudd waaye xoolal alquran bi xisas yi li muy wuutal wuutal wuute fii mu wax lee fee mu wax nii fii mu répété fii mu yokk benn baat tanaaxud amul ci mukk moo tax léeg-léeg day liir histoire ak borom xam-xam tanaaxud di ci am ñii naan at mi la faatu ñi naan at mi la judd ñii def ni lii ñii dee du ñuy nee la wuute di am seen diggante loolu di am ci xisasi alquran yi parce que mi ngi bàyyi koo ci yàlla bal kay day mottalante te loolu defe naa junjoon naa ko ci suuratul qasas bokk na ci xereñ gi nga xam ne alquran xereñ na ko mooy ni mu boolee diggante targhib ak tarhib xoolal rek léeg-léeg da lay tiital a tiital ba nga géew daanaka da ngay xaw a tàqali ko sa sago foo fekk lu mel noonu rek xamal ni mbégtee ko jiitu mbaa mbégte moo ci nar a topp parce que doomu aadama dafa war a doxee équilibre boobu warut a ëppal ci ciitaange ji comme ni mu warut a ëppalee ci li nga xamante ni moom mooy mbégte mi bokk na ci xereñe gi mooy borom bi subhaanahu wa taala daf ko def mu nekk jiwu xol jiwu xol mooy kenn ku gudd ngëm yàlla alquran boo koy jàng daf lay defal ngëm moo tax alquran ku koy jàng ku nekk da ngay nite da ngay gën a nite gis nga li ñuy tuddee intelligence muy muus yeewu nekk nit dëgg gis nga jamono jii rek la ñuy ñeneen di xalaat naan ñi gëmut lislaam wala tubaab yi wala yu demee na gën nañoo yeewu jullit ñi loolu jamono jii alquran dañ ko gannaawal waaye histoire ñi ko masal nett li ñëpp ñëpp ñett nag ay yéefar te dëgg ci seeni xalima ndax ko xam nga loolu am na yërkati histoire yi xam nañ ne am na ñoo xam ne duñu ay julit waaye wax dëgg yàlla dëggu nañ ci seeni xalima mooy mbir mi moom même bu wuuteeg seen diine réalité bi la ñuy wax dëppoo nañ ci ni jullit ñi ñoo gën a yeewu ñëpp man loolu moo taxoon ñu doon def ay pexe technique pour dox diggante jullit ñi ak alquran parce que alquran day yéene alquran da lay tax nga yeewu day tax nga nga xam ne day tax nga gën a muus ñëpp bal sax da ngay gëmee ne ñëpp kon bu fekkee dem nañ ba ñu gën a nëbale day fekk maanaam dañoo ginnaawal alquran gis nga keroog ba jàkka wàccee dox rôle yam daan dox keroog ba alquran wàccee dox rôle yam daan dox ndax jullit ñee ko fa bàyyi ba yeneen bi naan yaa rabbi inna qawmi ittaxadu hada alquran mahjura keroog la jullit ñi commencé di yoon jox beneen bi ci des mooy nag te alquran ci boppam dafa dajale maa mada wa maa xadar wa maa sayati histoire yi passé yépp alquran da koy ñett li wala yi ci ëpp bopp te amal solo jullit ñi fi mu toll dañu koy wax te dañuy wax li ñëwagul te léegi alquran nag mooy référence bi mooy repère bi amul téere buy ñett li loolu ci alquran lañ lay corriger alquran kenn du ko jël pour corriger di feneen moo tax kisas yi nettali yi amul benn aaja bu ñu am ci di wëri feneen fu dul ci alquran parce que alquran moo war di corriger yeneen téere yi ko jiitu ay bible ay évangile ak yu demee noonu alquran moo leen war a corriger su ko defee balluwaay bi source bi mooy alquran ndax moom li muy nettali loolaay bu wér maa kunta taalamuha anta wala qawmu nettali yoo xam ne xamoo ko saw xeet xamuñu ko waaye lan la nettali mooy li wér xam ngeen ni yéefar yi yàgg nañoo yabal numturati bokkaalekat yàlla yàgg nañoo dem ci ahlul kitaab wala yéefar yi di sàkku ay question ca la passé luñ daanelee yonent bi faf du sotti dafa naa yéen a ngi fàttali ko suratul kahf loolu bokk na ci li ko taxawaat ci sunu borom la hudan téere bi njub la wa rahmatan ak yërmande lil muxsiniina ñeel ñi nga xamante ni dañuy rafetal hudan njub la laa shakka alquran njub la inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam alquran day ginde ci yoon yi nga xam ne mooy wi gën a jub moo tax gis nga bu fekkee da ngaa soxla yoon wu jub rek demal jàngi alquran nga xam ko gis nga boo ko xamee rek ci yoon bi ngay jaar doo wàcc léegi nag doomu aadama yi bañ daan jàng alquran kese ak di ko tafsir di xam lu muy tekki nga xam ne coono yi ñu doon daj ci yeneen keeti xam-xam yeeg yeneen téere yi ci alquran lañ ko doon daj keroog jooja la nekkoon ala al hadi al mustaqim waaye keroog bañ demee ba taalib yi tàmbaree bari nga xam ne léeg-léeg sax jàng alquran kiim téere sàngam di ko liir moo la koy gënal keroog lañ am ay shabahaat am ay jadd jadd parce que alquran moom day gindi mu nga lay war yoon wi tere bu jub la boo xam boo ko toppee daal di gindeeku waaye wa rahmatan yërmandi la laa shakka alquran yërmandi la ndax alquran li ko tax a jóg këcc ci nit ñi di leen génne ci kàmb yi leen di alal di leen yóbbu ci àjjana ja génne nit ñi ci jaamu ku dul yàlla ak doyadal sa bopp ci ku jërul doyadal sa bopp ci kanamam ngir nga torox lul ko yàlla kese moom mi la yilif laa shakka loolu yërmande la yërmande mooy loo xamante ni boo bëggee ngëm yàlla may la ngëm yàlla soo feebaree nga jàng ko mu saafara la sa xol boowee nga jàng ko mu nooyal ko soo bëggee xam histoire li passé nga jàng ko mu xamal la ko maam yow lépp loo soxla ci ni lay jëriñ rek mi ngi ci biir téere bi ndax maa faratna fil kitaab min shay waaye lil muhsinin ñeel ñi nga xamante ni mooy ñiy rafetal mooy gaa yi nga xam ne ñoom kat wax dëgg yàlla rafetal gi daa yegg te la leen suñ borom sant ña ngi koy def ba di ko def nam ko bëggee te saa bu ñu rëccalee ba jàdd yoon tuub jéggalu seen borom ñaareel moom mooy li leen suñ borom sant buñ ko defee ba noppi dañuy tiit ndax seen borom nangul na leen ko wala déet kon ñooñu kat ah xam-xam dëgg dëgg la ñuy jëfandikoo ndax rafetal googu nit ki xam ngeen ne al ihsan min a'la maratibil iman nga xam ne dañ ni axbirni anil islam axbirni an il iman axbirni an il ixsan al islaamu yakunu fi lmartabati al ula summa al iman summa al ixsan gis nga nit ki bu duggee ci daairatu al islam léegi dama koy compter jullit waaye nag jullit taxut nga am iman ndax qaalat al arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna nit ki ci islam lay yëg fas benn tànkam yéegaat beneen échelle àgg ci darajatul iman gis nga bu àggee ci darajatul iman nag wax dëgg yàlla ku gëm yàlla la te ku gëm yàlla fu ne nag am nga lu rëy waaye am na martaba ju la dese nag yoo xam ne moom mooy dana ci ximma ba mooy al ihsaan nga xam ne nit ki day yegg ci yàlla ñor ko saf ko saf ba rafetal gi muy rafetal ni muy jaamoo yàlla rafetalu kun ni yàlla ni nii taxaw ci sa kanam la an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak maanaam kooku dafay dem ba day am baat yu muy jomb a génnee ci gémmiñam parce que day jàpp ni kàddu yi ku yëg ni yàlla mi ngi lay surveille jamono ju nekk kàddu yooyu day forox ci sa gémmiñ waa ji dafay dem ba am na jëf yoo xam ne yu nit yu bari la yuñ ko may da koy bàyyi ndax duñ du luñ la may lu nekk nga jël ko nag ndax loolu ci xuuse la bokk waa ji dafay dem ba buy jaamu yàlla da ngay sentir ni kii nekkatu fi dafa demoon mooy misaal mi leen joxante kenn ci suñu borom xam-xam yi di ko xafisahullah mooy bi nga ne allahu akbar mooy départ nga wan nga lépp àddina ginnaaw comme ni nga yàlla xee lii da nga neen asalaamaaleykum mooy damaa dellu si waat mooy dem naa ba dellu si ma rafetal gi nit ki egg ci rafetal bi day yegg ci bu tufli jote woon yonent yàlla mu ne bul tufli sa kanam te fekk yaa ngi ci biir julli gi parce que yàlla mi ngi sa kanam sa yàlla mi ngi jàkkaarloog yow bul tufli sa ndey joor sa ndey joor parce que benn malaaka ma nga fa fooy tufli mu ne tufli sa xaram tey tànk wala nga def ko ci sa morso wala yu demee noonu yëg-yëg yooyu nit ki di am nag mooy dara jafi ihsaan yëg ñi ki na yow ñu ngi lay contrôlé xam ngeen waa ji nga xam dafa dugg ci benn supermarché yëg ni caméra yi ma ne la kudd sax kudd boo ko laalee rek filmé na la waa ji du laal dara parce que dafa xam ne ñu ngi koy filmé léegi foofu li muy contrôlé woon ndax am na lu koy contrôlé daraja ihsaan foofu lay yegg moo tax gis nga nag ki dem ba yegg fii nag foofu lay amee daraja yàlla daal di koy bëgg nag wax malaaka yi bëgg naa diw jibril woote asamaan ñëpp daal di koy bëgg fa yutau lahu alqabul waa kaw suuf dañ koy bëgg te duñ xam sax lu tax ñu bëgg ko parce que yàlla moo ko defal qabul fi l ard wa fi sama yàlla na su suñu borom defal nu loolu suñu borom mu ni alladina gaa yii nag ndax yu mel nii suñu borom su ko waxee ñi bëgg ngëm yëpp ñi bëgg a baax ñëpp ku nekk day commencé yuqeeku di bëgg a doon waaj te laa sakka loolu mooy lu baax nag suñu borom ni alladina gaa yooyu boo leen bëggee xam mooy ñi nga xam ni yuqimuuna salaata dañuy taxawal julli taxawal julli nag wax naa leen ko ba tàyyi min gayri ma marra tekkiwul ni mooy julli rek kese waaye yëg ni maa ngi julli ci ki ma amal audience mooy suñu borom ku màgg la def ndànk ànd ak dal amul daw amul rambax rambax yi fàtte lépp ci àddina sellal julli gi mooy iqamatu salaa mooy taxawal julli gi taxawal gi mooy jox ko mbir yi mu laaj yëpp sellal ga ca warat waajal gaag teewlu xol baag yar cër yéeg yooyu yëpp ci julli gi lay bokk bu ko defee julli gi dooga dooga mën a def nag tanha anil fahshaai wal munkar waaye julli kese moom taxut muy wax muy benn wa yutuuna zakat ñu joxe azaka parce que alal dafa taq ci bakkan azaka tekkiwul mooy at mi jot nga génne ci alal ji azaka kese jubluwuñ ci loolu mooy lu ca gën a màgg waaye am na lu ñuy tuddee génne sarax muuram koor joxe azaka dimbale ko ñàkk parce que alal dafa taq ci xol te xol moom la yàlla soxla ci nit ki alal day ñëw di xëccoo xol bi ak suñu borom seytaan bi xëccoo xol bi ak suñu borom doomu aadama ji bu demee ba tapp gi xol bi tapp ci alal ji dafa dafa bari dafay dem ba pour mu dimbali kenn da koy jafe waaye léegi pour wan alal ji ni ko yàlla moo la la gënal nit ku nekk saa bu nit bis boo xëyee da ngay sang alal ji moom am ndox du ko sang li koy sang mooy nga génne ci dara di dimbali loolu dafay sang alal ji mooy suñu borom maa ngi génne li ma gën a bëgg te ku ne xam ne ni xol a bëgg ma di ko joxe ngir wane ni li may séentu loolu laa gën a bëgg ci lii ma yore allahu akbar la muy séentu mooy jannaati adnin yadxuluunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim ah ajjana joo xam ne ajjana yi adan la loola moo koy gënal alal ji mu yore kon gis nga mu daal di koy génne suñu borom mu ni wa yutuuna zakat ñuy joxe azaka wa hum te ñoom bil axira ci àllaaxira hum yuqinuun dañoo am ak kóolute ci mbirum àllaaxira xam nga gëm naa àllaaxira rek doyut parce que gëm naa àllaaxira xam nga mbir mi bu nit nit bu gëmee benn mbir dafa am lu koy manifester lu koy wane. xam ngeen ñun waa àdduna day feeñ ci suñuy gëm-gëm nit bu gëmee benn mbir da ngay gis mu di ko manifester wu di ko wane gëm àllaaxira mooy ki gëm ni ëllëg damay dajeeg sama borom mu àtte ma ala sagiri wal qitmiri wal fatin yajzi bil ixsaani ixsaana ah wa bil isaati isaa ah yajzi alladina asaau bima amilu wa yajzi alladina axsanu bil xusna kooku ni muy doxalee du bokk ak nit yi seen bëri ni ñuy doxalee kon gëm àllaaxira gi loolu mooy samara bi muy meññant bi sunu borom ni ñoom de. yuqinuuna bil axira dañuy gëm alaxira te xam ngeen ne lii dafa dëppoog muqaddimatu suratu baqara fi baqara tàmbalee gëm alaxira suñu borom ne ulaika gaa yi nag ala hudan ñoom de ñi ngi ci tege ci njub min rabbihim gu bàyyikoo ci seen borom allahu akbar yuqimuuna sola yutuuna zaka wa hum bil axirati hum yuqinuun yàlla mu ne yéen jongante bin doon def am ngeen ndam yéen at mi ngeen allahu akbar mbokk yi gis nga ayat yii lii moo tax sunu borom dañuy wax nañuy def tadabbur quran maanaam léegi ab jongante la mu ne mbirum alaxira nekkul ni jullit bi day toog rek yàbbaaraal rek ni xool ba dem ba alaxira daal doo nga xam samay résultat dëgg la nit ki mën na garanti day dem àjjana mën na garanti day dem si safara waaye problème bi mooy alquran mën nga ciy natt sa bopp pour war a mën a am foo féetali sa bopp yow jongante la suñu borom wax na ki nar a at la critères yi muy yore yuqimuuna alsala yutuuna alzaka wa hum bil axirati hum yuqinuun point yi lañ la bëgg nga remplir ko ci feuille yi yow kay wax dëgg yàlla boo fekkee wir na xam nga ki remplir ba pare di tiit nag kooku remplirul déedéet gis nga examen bu amee am na étudiant boo xam ne bu génnee xelam day dal ba bis bu ñàkkoon a at ne da koy jaral mu def réclamation parce que dafa gëmoon ni day at ne am na yaqiin am na koo xam ne ba mu génnee moom la xam ne li mu def baaxut am na koo xam ne daa génn di sikk sàkk baax na wala baaxul sikk sàkk bu la ci fekkee kon wóolu wóolu li nga def kon jullit bi war naa yegg ci am yaqiin ci li muy def parce que iqamatu salaa wa itaau zaka wal iqaan bil yawm al axir yii bu ñu dajee sunu borom mu ni ulaayika ñi ala hudan min rabbihim ñoom teg nañ seen tànk ci njub gi ñoom at me nañ teyit nag d'office la ñuy jàll nag d'office la ñuy jàll mooy amul dem ba àllaaxira di xaar ay pour ñu lay remboursé ay points yooyu remplir pour mën a kii fii ba déedéet yooyu amul ci da ngay jàll d'office du ko ajana mu jeex suñu borom mu ni wa ulaayika gaa yi humul muflixuuna mooy ñiy texe yàlla suñu borom boole ñu ci lu am solo la mbokk yi nit ki di ko jàng di ko tadabbur fexe remplir points yi nekk ci feuille yi tey ñaan yàlla mu dimbale la nga bokk ci ñi at ne suñu borom critères yu am solo yii mu joxe mooy wane ni maanaam ki ci jaar kat kooku gindeeku na ci gindeekuk alquran gindeekuk alquran mooy teg sa tànk ci yoon wi gëm ni fi nga ko teg fala fi nga teg sa tànk fala mooy fa yonent bi tegoon tànkam alayhi salatu wasalaam bàyyil xel loolu de wallahi doo dem ba àllaaxira yàlla dina la kenn la ahadan min al ulamai fadlan an gayrihim kenn ci borom xam-xam yi la la yàlla dul laaj keneen taxut day taxut may wax yàlla kim lay laaj mooy muhammadin alayhi salatu wasalaam ki yàlla yónni woon ci yow wa yawma yunaadihim fa yaqulu maada ajabtum almursalin lan ngeen borom xam-xam yi sëriñ si déedéet almursalin yonent yi lañ wax maada ajabtum almursalin li yenent yi wootee sa réponse yow lan la woon foo tolloon ci wuyu wuyu woote bi kenn ku ci nekk nag day natt boppam xool ndax li mu nekkoon mooy la yonent bi nekkoon alayhi salaatu wasalaam wala déet bu fekkee wér na te ñeme nga ni lii ca la nekkoon te yaakaar nga dee fekk la ci nga ñeme ko wóolu ko amal dal xel tey ñaan yàlla mu saxal la ci waaye bu fekkee yaa ngi am tuuti dut wala sikk sàkk su booba wàcceel sa tànk foofu te nga xam ni salakta tariqan gayra gayra tariq jaar nga ci yoon wu dul yoon wi sunu borom ni wa min annaasi am na ci nit ñi man waajoo xam ne yashtari dafay jënd lahwal xadiisi waxi caaxaan wa min annaasi am na ci nit ñi man waajoo xam ne yashtari dafay jënd lahwal xadiisi waxi caaxaan li yudulla ngir namma sànkooka sànke an sabilillahi ci yoonu sunu borom bi waaye bi gayri ilmin ci loo xam ne dafa tegewut ci xam-xam aaya jii de mbokk yi bahrul umma wa turjumaanul qur'an abdullahi bin abbas bu musaana jàng aaya ji ba yegsi ci wala abdullahi bin mas'ud boog bu musaana jàng ci aaya ji ba yegsi ci day wax ni wallahi huwa alghina wallahi huwa alghina wallahi huwa alghina abdullahi bin mas'ud nga xam ni daroon wax ni amul aaya ju wàcc ci alquran lu dul xam naa tam la wàcc ak kañ la wàcc ba muy wàcc da doon tawam daa xiinam daa naaj te bu ma xamoon ku ma gën a dégg alquran tànk mën a dox yegg ca moom ma dem mu jàngal ma mbokk yi kii wax lii wóolu na ba moom de ci wax lii est-ce que seede boobu rek day doy ahankay doy na waaye am na ñuy tax mu gën a doy ndax yonent bi nee na man araada an yaqra alquran gaddan tariyan kama unzil fal yaqra ala qiraati ibni ummi abd ku bëgg a jàng alquran ju tooy xëpp joo xam ni direct bàyyi ko ci yàlla amul jàpp-jàppal fépp ba yàq-yàq di ci am déglu Abdullah ibn Mas'ud mu jàngal la quran allahu akbar والله لشهادة عظيمة يا لها من شهادة عظيمة nee na jéggee naa ci gémmiñu yonent bi soixante dix saar ci alquran yoo xam ne moom jaarul jaarul feneen ci moom la jaar yegg si ci man mbokk yi kii bu waxee ku ñuy déglu lay doon insha allah bu jàngaan aaya ji day dil ñetti yoon ak saxaaba yi niñ xamee ngiñ te ñoom buñ waxul buñ waxee te giniñ sax ñu gëm leen mu ne aaya ji musique moo ko tax a jóg musique moo ko tax a jóg bunt bi nag duma ci faram fàcce lu bari ndax defe naa wa ma suratu sur shuaraa minna bi baid suratu shuaraa defe naa bi ñu koy tafsir ak léegi yàggut te ci mujjantal ga ba may tafsir wa shuaraa yattabiuhum algaawun waxoon naa leen lan mooy atte musique ci l'islam loola baamtuwaat du ko jar lu dul la ca mënta ñàkk ni musique ak façon yin koy tuddee yëpp dafa xaram musique gu arab baat musique gu traditionnel baat musique gu sénégalais baat musique gu jazz baat façon yi am yëpp dafa xaram maadaama way wa dafa ànd ak ay instrument dafa xaram te it lan cay wax même bu dee lu dagan la dafa xaram te lan fay wax même bu dee day jàngal nit ñi dafa xaram lii mooy jàngale lislaam yal na yàlla fayal nu yiw الشيخ العلام محدث الواحد والعشرين قرن الواحد والعشرين العلامة الألباني taalif na benn téere bu mu tuddee taxrimu alaati tardi téere bu am solo la bi maana al xilm mi ngi ko def ci araam goo xam ne daf koo araam instrument yi nga xam ne mooy ànd ak musique leeral na ca leeral yoo xam ni képp koo xam ne xol bu nar a jariñu mi ngi ci yow boo ca xam ne waxuma sax musique dafa xaraam waaye instrument yi musique yi sax yow da ngay dëgg sax bu ci am benn Abdullah ibn Omar su musaan dox mu yàgg mu dégg ak tuxura wala instrument yooyu ñuy musique day def ñuy nopp yi su fekkee àndul ak nit day jékki-jékki si kar gi benn bi ndax bëgguta mu tàbbi ci noppam bu àndee kenn naafee day jékki yàgg mu ne naafee dindil nga xool sa nopp bu naafee di mu ne ko affaire yi arrêté gul mu ne arrêté gul de mu sakkaat ba mu yàgg mu ne arrêté na mu ne waaw mu doog a dindi ndax bëggul rek mu tàbbi ci noppam mbokk yi kooku bu yegg si woon fii sunu jamono ji mu dégg ñun sunu rajo yeeg sunu oto yeeg sunu nangam est-ce que yaakaar ngeen dina dugg oto man yaakaaruma ko yaakaaruma ko te ko jamono jëm du instrument yi nga xam ne ay tamaaki ay affaire yooyu déedéet ay tuxuraa laak yoo xamante ni daanaka nasalullah salaamata wal afia kon mbokk yi musique dafay saxal ci xol naafiq comme ni ñax ndox di ko saxale wallahi day yàq ngëm yàlla kenn bëggul boo faata ñu dina musigal waaye mbokk yi lu baax kay dëgg-dëgg nag war daa bëgg boo dee ñu defal la ko kenn bëggul boo faatoo ñu dina musigal déedéet kenn bëggut loolu gis nga doomu aadama yi ñoom mën nañ àtte seen bopp walis alquran di ñëw ci bunt bii parce que ñoom ñoo wane ay geste yi wane ni lii baaxul kër gii bu ñu si doon musique léegi ba mu yàgg nit daal di faatu ñu fay musique bi bu alxuraan doon jàng jarul fay xanaa wàññeeku ndax tiis wala yooyu waaye kenn du ko fay kan moo bëgg nga faatu ñu musical la anniversaire yi ñuy def te doonte loolu dafay wuuteeg l'islam islam xamul anniversaire ku faatu xamul loolu waaye yooyu yëpp doo ci dégg musique lu tax doo ko ci dégg parce que xam nañ ni baaxut xam nañ ni baaxut moo tax gis nga doomu aadama doomu aadama ku doyadi la ku doyadi la ndax boo seetloo baat yii nga xam ni moom lay déglu wallahi bu tëddee feebar dootu ko bëgg a dégg ci boo tëddoon tey ci la lu hôpital bi sukuraat dootoo ko bëgg a dégg ci xam nga doomu aadama yi gis na seeni geste rek mën naa àtte léegi léegi léegi léegi ci bunt bii bunt bii nag laay waxee tey doomu aadama ji paa bi mi ngi feebar ci kër gi sonn ñi ngi naan day sukuraat ak sukuraatu jaaxle am ci déglukatu musique bi ne ci kër gi même bu yoroon woogoon da koy fay rajo bi ñu doon musique dañ koy fay ñun bu xew amoon ci koñ bi ñu musique ñu yëg ñu commencé xultute moo ne ñoo ko doon def lan moo ci nekk dara ngeen ci nañ bàyyi ko continuer musique xam danoo jàpp bu baax la ba chaque jour ñu di ko def kay na bàyyi mu continuer boo dikkoon ci charia nag defe naa baabtu gi dama koy def ngir aaya ji da ko war waaye jëru ko woon parce que defoon nañ ko ca suratu shuara la shakka dafa xaram bu fala yaxurannaka ma yaquluhum la adri aqulu al ulama aw al muta mutaalimun xam nga borom xam-xam laa ko xam ñuy xam-xam lu ci rajo bi da ngay gis ñoo xam dañ naan waaw façon musique bi bi xam nga yooyu man damaa jàpp ne sax wax dëgg yàlla toog di ko déglu sax nag daanaka ci ñàkk am fulla la bokk. musique arabe musique arabe mooy lan arabe yi laa waxoon wàccoon ci ñoom di da ngaa fàttali loolu suñu borom bi muy wax waxu musique sénégalais waxu musique sénégalais bi amaguñu bu arabe yaa taxaw muy wax musique arabe. te li lay wan ni maanaam dañuy fooye diine bu ñëw jum sax ci alquran tey dañuy jël aw way woo xam ni nee nañ kilifa diine moo ko way di ko taggee yonent bi ci misaal ñu jël ko di ko dugal ci biir musique yi di ko te kenn du wax dara ça veut dire que dat ndax loolu li muy wane mooy kon yow ànd nga ci moom bëgg na loolu alquran moom moo ko mooy waxam sax moom gis ngeen alquran ji ni ñu koy doyee dalee ayatul kursi qul huwallahu ahad allahu akbar yéen a ngi fàttaliku benn waykatu xuma rappeur la xuma kan ku jëloon xuma kan ci waykat yi ku jëloon benn benn instrument église mu dugal ko ci biir musique am defe naa yéen a ngi koy fàttaliku bu baax ak lam ca nag gis ngeen ko de xana alquran ñu koy waxal doo dégg kenn ayatul kursi yi ci biir danse bi ñuy way ak subhanallah te al aaya bi gën a màgg ci alquran kenn du wax ndax nag da ngay gis ku ñuy wax ab borom xam-xam mu ñëw mu ne yonent bi moo njëkk a daganal musique wallahi kooku kooku mi ngi kàccal yonent bi alayhi salaatu wasalaam kooku mi ngi kàccal yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi lañ ko doon waxal lañ ko doon waxal xaajul bay niroog lii te loola ba tey mi ngi dagan loola ba tey mi ngi dagan loolu amul way amul ay baara la ci dem ak a jóg amul instrument amul tuxura amul dara te lu baax dong la fakiltu bunayati in lam tarawha tufiiru naqa min tarafay kidaa'i fa inna abi wa walidahu wa ardi li ardi muhammadin minkum wiqaa'u ah di wax yeneen tasalam wax yoo xam ne dañ koy tagg te wax la yu ñor yoo xam ne sirku amu ci bokkaale amu ci te wax la ju ñor yeneen bi bàyyi leen ci te loolu mi ngi am ba tey nag loolu moom bu dee loolu la dara nekku ci ci lislaam amul instrument amul dara waaye façon yi ñuy def yépp nag laa wax amu ci benn bu ci dagan te loolu mooy li gën a wér suñu borom mu ne am na koo xam ne yestari day jënd lahu wala xadiis waxi caaxaan waa mbokk yi su fekkee suñu borom tëkku lii ngeen di bëgg a dégg ki koy jënd la wax waa fa kay fekk ka koy def ak ka koy dégloo ka koy ka koy encouragé ak ila axirihi gis nga de yestari di jënd lahu wala xadiis xataada da doon wax naan amaan na sax nit ñi moom lii du leen jaral jënd waaye imam xataada bu ñëwoon ci jamono ji waaye mu ne amaana waxi jaaxaan yi nit ñi dañ ko faral di jënd waaye nag dañ koy bëgg léegi nit ñi yemuñ ci bëgg ko dañ koy jënd nag cassette musique yépp a ngi jar ci réew moo xam ne ne quatre vingt quinze pour cent ay jullit lañ quatre vingt quinze fan quatre vingt quinze pour cent ay jullit lañ te fi la sàngara gën a jaree quatre vingt quinze pour cent ay jullit lañ te cassette musique yépp ay jar quatre vingt quinze pour cent ay jullit lañ te danse yi nii fi la ëppee yooyu jullit ñooy yéen jullit ndax ñi ñooy jullit yi yàlla soxla woon waada allahu alladina amanu wa amilu salahaati la yastaxlifannahum fi l ard istixlaaf boobu ci kaw suuf jullit ñi taxut nuy wax moo tax ba yahud ba ba jullit ba ne ne ne ne ne ne yahud ba kii bis dana ñëw yéen da ngeen lay fonto dinañ leen fët ba ngeen di bëgg wax a wax bay àggal mu ne ko li nga wax lépp dëgg la waaye nag yooya jullit du yéen mbokk yi lii xas wu xas wu bon la sax xas wu bon yooyu jullit di yéen maanaam moom gëm na li yonent bi wax ne bis dana ñëw jullit ñeeg ñi dul jullit danañ xeex ba jullit ñi gañe leen gañe ko métti dëgg la waaye ñu- moom gëm na ni original jullit yi lay doon du doon tokkati jullit yi ngay seen moo tax mu ne ko ndokk waaye nag du doon yéen ñooñu ñooñu ñooñu doon doon yéen te wax na ko dëgg ndax suñu borom nee na ñam koy jox mooy ñi nga xam ne yaabuduuna laa yushrikuuna bi shay suñu borom mu ni wa yattaxidaha maanaam li yudalla an sabila muy sànke ci yoonu yàlla ba gayri ilmin te du tegawul ci xam-xam loolu firnde la bu leen ni kon musique dafay sànke suñu borom mu ne wa yattaxidaha da koy jàppe husuwan ay mokke ay mokke ay caaxaan di foye di foye alquran ci biir wax ja di foye xadis yonente bi alayhi salatu wasalaam bal di ko def def fawkaay maanaam doomu aadama yi pour ñu féexal xol musique lañ koy féexalee la hawla wala quwwata illa billah dégg naa noptaal yoo xam boo demee bokk na ci liñ lay fajee psychologiquement dañ lay defal ay genre musique gu jazz yoo xam ni subhanallah loolu day yàqalu ko gëm yàlla dama ni xol bee feebar bi zikrillahi tatma innul qulub zikr mooy faj xolub ku gëm yàlla waaye du leen leen da koy yàq waaye du ko faj suñu borom mu ni wa yattaxidaha mu koy jàppe husuwan ay caaxaan mujahid mu ni mu nam da koy def mokkewu kaay di def reetaanu kaay suñu borom mu ni ulaayika ñooña lakum ñeel na leen adabun muhin mbugal mu doyadee doyadi alaxira maanaam ñoom liñ doon doyadalee santaane yàlla yi doyadal gu tooyoon leen suñu borom di fayee alaxira wala gu ko gën a rëy kon lii firnde la buy wane ni maanaam jullit ci boppam daa amul sax jotug nag war a déglu leneen man damaa jàpp ni sax maanaam bu programme bi baaxoon maanaam jullit temps déglu musique da caa da caa xajut da caa da caa mënta xaj yow boo gisee ko feebar am na loo war a wax booy génn sa kër am na loo war a wax booy dugg ci jàkka ji am na loo war a wax alxuraan li nga sa war a jàng jullit tisbaar ak takkusaan timis ak géeg naafila yi boo ko boolee plus sa dar sa diine dama ni fooy déglu musique amu fa xaju fa waju waru fa woon a xaj maanaam waxuma ne sax dafa xaaraam déglu gi waaye jëm bi bokk jëm bokk ci programme bi rek moo lay wan ni échec nga yow parce que loolu xajul ci programme bi programme bi jullit loolu xaju ci moo tax bépp mooy yàlla buñ la tere rek yëgal ni résultat bi égal mooy da nga am ñaari faay faay bu njëkk bi mooy tegee goo ci yoon wi parce que boo tege woon ci yoon wi lee du am jot ba doo am jotoon ba muy dugg ci sa programme nga doog a ñëw nag ci xaram bi muy ñaari musiba suñu borom mu ni wa ida tutla alayhi buñ leen jàngalee aayatuna sunuy aaya walla dañuy dummuyu walla dañuy wane gannaaw dummuyu mustakbiran di réy réylu am na koo xam ni fi mu ne loo ubbi ci musique nag mën na ko déglu waaye seen buy jàpp alxuraan moom mënu koo romb am fa une seconde day jàll dem muy benn am na koo xam ni mën na xëy suba ba ngoon di déglu musique alxuraan mënta toog di ko déglu diir boo xam ne ay 30 minutes sax mënu ko lu waral loolu ndax musique bi dafay dem ba saxal ak nifaax ci xol bi mu am fay bànqaas am fay reen su ko defee alquran ji da koy sonal du ko mën a déglu alquran ji da koy sonal lii am na dég waxuma yéefari jullit ñi laax jullit ñi gis koo xam déglu alquran da koy sonal maadallah suñu borom mu ni walla day du mooyu mustakbiran wane di réyéelu ka an lam yasmaaha comme ku déggul alquran maanaam comme koo xam ne li muy dégg da koy da koy tànkal da koy sonal suñu borom muy fabashir ka anna fi udunayhi mi ngi mel dafa nekk ci ay noppam waqrun ay sakk-sakk waqra dafa mel ni ay sakk-sakk daa nekk ci ay noppam maanaam dafa mel ni waajoo xam ni dañuy jël ay puso di ko jam ci nopp yi buy déglu alquran noonu lay mel nga xam ngeen ni yàlla rek soo tax ala yàlla man xalax xëy na lii buñ koy wax yow min dalu sa problème mooy est ce que lii am na te effectivement xam nga dafa am xeeti feebar yoo xam bu la dalut bu noo koo xam da ngay laajte waaye loolaay baax baax ba nag est ce que lii am na nga dem ba tool ba nag est ce que lii am na mooy wane yow doolu la santal yàlla waaye am na ñoo xam ni aaya ji ñoom buñ ko déggee xam nañ aaya ji xam na ni am na am na koo xam ne buy déglu alxuraan comme ku ñuy jam te mën naa yéen doo déglu musique ba ngoon da ngay dégg ku ni bu ku ni bu meree sax bu dégloo musique sàngam day kontaan loolu da nga koy dégg day am te effectivement seytaane def loolu nag comme ni nga xam alladina amanu bu ñu déggee alquran rek dañuy kontaan ndax tatma innu qulubuhum bi dicrillah alladina amanu wa tatma innu qulubuhum bi dicrillah même boo énervé wu woon mbaa nga mer mbaa nga jaxasoo mbaa nga jaaxle mbaa nga tiit mbaa nga boo dégloo alquran da ngay dellu siwaat moo tax suñu borom mu ni ñooñu day fa bassirhu wala kooku fa bassirhu na nga ko bégal te mbégte mbugal mënta nekk maanaam bé bégal bégal gii kokkali la mooy zuq innaka anta al azizul karim waaye masal mbugal mi waaye tey da ko tedd nga fa bassirhu na nga ko bégal bi adabin alim ci mbugal mu méttee méttee métti mu koy xaar gis nga doomu aadama bi muy déglu musique di kontaan di am mbégte te foofu bàyyil xel li ma la wax sànq dama ni leen musique yi yëpp laa wax bu classique baak bu musique traditionnelle baak musique kii baak ila axiri musique musique la ba mu tuddee musique la xaram su ñee way nag way nag woo xam ne amul benn instrument amul ay tuxura amul ay baaral amul tama amul ndënd amul instrument yi ngeen xam yëpp amu ci te la ngay wax lu baax la te it amul benn sirk bu ca am ëppal amu ca loola dagan na ci ay surut yoo xam ne borom xam-xam yi tër nañ ko gis nga doomu aadama su fekkente ni mi ngi déglu musique di am kontaan te ca déglu gën a yëg ni mbugal mu toll noonu ma ngi koy xaar te mbokk yi mbugalum suñu borom mbugal mu metti la doomu aadama bu xamee lan mooy mbugalum suñu borom loolu dana tax mu góorgóorlu lim ni ko bàyyi ko mu bàyyi ko suñu borom mu ne inna alladina gaa ñi nga xam ni amanu dañoo gëm yàlla allahu akbar ngëm yàlla ngëm yàlla ni muy def nit kéemtaan suñu borom la waa ji nga xamoon mu nekkub saay-saay fuy dansukaay ci Dakar dugg na fa fuy wayukaay fuy feccukaay waykat boo lim xam na ko caaxaan naa caaxaan ba xeeti caaxaan yi loo ci tudd rek xam na ko lakin arada allahu an yashraxa sadrahu lil islam fa sharaxa allahu sadrahu lil islam وهداه بالقرآن الكريم فغير فغير وتغير وأحسن وتاب وأناب إلى الله فأصبح كأن لم يكن بالأمس waaji mooy yàlla goo xam jaar na ci caay-caay goo ko wax xam na ko waaye yàlla na mën a koo baaxee mu gindi ko mu ñëw góorgóorlu dugg ci diine gis nga ngëm gi taf-taf da koy soppi soppi goo xam ni yow nit ñi sax dañuy yéemu léeg-léeg nga dégg sax nit ñi di ko kafee sa gëm diw moo soppeeku ñëpp dinañ soppeeku xam nga loolu dañ koy faral di wax c'est-à-dire que nit ñi amul woon yaakaar ci mu soppeeku waaye ngëm yàlla day soppi doxal mi day tax nga mel neneen ku la xamoon daaw jéeg bu ñëwaati daan kii di bokkut ak kama xamoon waaja daa bari woon wax wax yi wàññeeku lu ne mu dugg ci tooxi doon ak giraawali gu ne dugg na ci léegi ngëm yàlla gi da lay tere loolu kon ngëm yàlla lu foor la inna alladina amanu gaa ñi gëm yàlla sunu borom mu ni wa amilu saalihaati tey jëf-jëf yu baax lahum ñeel na leen jannatu naim ajanay xéewal ndax kat ñoom faw sunu borom berndeel leen dafa metti nag dafa metti faw sunu borom ëllëg mu neexal ko nag parce que xam ngi ni yi bakkan di ñoddeeku yëpp pour mu neex ci bakkan dañ la kaa tere dama ànd ak xale yu jigéen yi wala ngay jigéen ànd ak xale yu góor yi di caaxaan neex na ci bakkan te am nga possibilité def ko kenn taxawul sa kanam di la di la ko tere iman bi lu fay bi rek la teree dugg foofu waaye vraiment ñii nag dëgg dëgg faw suñu borom nag teral leen nag toog ba guddi ñëpp ñu ngi tëdd affaire bi dal lool kenn gisu la nga xam ni boo defee kenn xamul boo deful kenn xamul nga bàyyi lal bi bàyyi kii bi jug di julli ah waaye vraiment kooku suñu borom du ko bàyyi noonu muy neen déedéet nit ñaa ngi lekk te nekkuñ ci weeru koom nen damay woor kenn forcé wu la te boo ko defut kenn du la yedd nga ne da ngay woor ah déedéet suñu borom du boole ñaari musiba nag di la ko teg du boole ñaari musiba di la ko teg moo tax gaa yi kat lakum jannatu naim ajana ju neex ndeysaan lakum fiha ma tashtahihi al anfus lu bakkan bëgg ci lu neex rek ma nga fa wa talazzul aayun luy seral bët rek ma nga fa wa antum fiha xaalidun nag amul génn xam nga lekk gi lum neex neex neex boo xësee géex mbaa nga jóge ca lekkukaay ba rek affaire yi commencé soof parce que xulul amu ca xew li lu mu neex neex neex bu tasee naqari waaye nag àjjana ja bokk na ca la ko tax a neex mooy du jeex mbokk yi naka la ku am xel di gam-gam lee liy jeex ak lu dul jeex xéewal goo xam ne ndeysaan laa layla indakum wala nahaar la bard wala sayf wala chita wala xar wala zamharir wala tamaxut wala bawl wala xaait wala taab wala araq wala allahu akbar amut ñaq amut dem wanag amut tafli amut gis baax amut màgget amut komor amut accident amut feebar amut ñandu amut wànneen ah amut gëmmentu amut mer amut diwa ma tooñ amut maa joteeg diw kenn du la wax yàlla da lay sàmmal ba sàmmal la kenn du la wax la naqari biir àjjana la yasmauna fiha lagwan wala tasima li mu la naqari sax yàlla da la koy sàmmal kenn du la ko wax foofu mbokk yi lii àjjana rek la am sàmmal la ba sàmmal la lu la naqari même lu lay tànqal sax la yasmauna fiha lagwan lu lay tànqal doo ko dégg biir àjjana déedéet parce que yàlla da laa garanti lépp dafa sécuriser lépp lu lay tànqal du fa am ku lay tooñ du fa am koy meranteel du fa am maa ko def mu def ma du fa am jàppante amu fa màggat amu fa ah allahu akbar mbokk yi loolu ku ko xalaat te gëm ko iman bil xëy bi nekk ci yow maa ngi yaakaar ni yëf yëfaan yii nga xam ne moom la sunu borom tuddee al aajila kalla bal tuhibbuna al aajila wa tadruna al axira nit ki dana gën a góorgóorlu wat baax yàlla sunu borom saxal na ci njub sunu borom mu ne xaalidina fiha dañuy sax tàkk ca àjjana ja nag duñ génn waada allahi lii mooy digab yàlla mbokk yi doomu aadama yi am na ñoo xam ni seen dignité seen seen jom nit ñi laax nit ñi seen dignité ak seen jom ak seen bañ yaa fi waxoon te defoo ko yegg na foo xam ni buñ la xësee jox seen kàddu même buñ doon daggat seen yaram sax danañ daggat seen yaram ngir sàmm seen kàddu googu te kooku ab nit la mbindeef ci mbindeefi yàlla yi sunu borom moom bu la liggéey moom walillahi almasalul aala sunu borom mu ne xaalidina fiha dañ fay sax dàkk bul sikk sàkk ndax waada allahi lii mooy digab yàlla bi xaqan dëgg la de wa huwa al aziz mooy ki not ci nguuram du def mukk ñu téye loxo naan ko doo fi defee comme ni ko nit ñi def ah wax dëgg yàlla de dëgg dëgg nag bëggoon naa la ko defal waaye xam nga rek sama njaati gi li moo ne ma nangam sama kilifa yi parce que da nga am kuraan la bul def sunu borom mu ni loolu amul ci dooram de moom kenn du téye loxoom naan ko bul def xaqan dëgg la parce que al aziz mooy ki not ku not moo xam ne lu mu bëgg def def ko al xakim ko xereñ mooy li ma tàmbalee woon sànq suñu borom ni xalaqa samawaati suñu borom moo sàkk asamaan yi ngay seen di juróom-ñaar tegalante rëy lool baas boo xam ni dénd goo xam ni ma ban matière lañ ko defaree bu doon kaw su yàqu na bu doon weñ yàqu na ah bu doon weñ la nga xam billahi bu ko brise bi jàppee ba ba ko ah bu doon kawsu la bu ko tàngooru jant bi jàppee ba ba ko ban matière la ko yàlla defaree mu mel nii mu mel ni gàtt ca kaw rek yaatu lool tegalante na bay juróom-ñaar ca kaw dégg goo benn réew ci kaw suuf ñu ne asamaan saa maam déedéet loolu moom loolu loolu da di da di ak doya di dëgg nag da di ak doya di dëgg borom bi subhanahu wa taala bindee asamaan si noonu suñu borom ne bi gayri amadin tarawnaha benn pota téewu bu ngeen di gis wa alqaamu samp fi l ard ci suuf si rawaasiya ay montagne suuf si moom màbb na barab sàngam di nga koy faral di dégg loolu li tax nga di ko dégg te doo ko dégg ca kaw nag li xikamin kasira xam nga lu tax fee ma nga ca kaw fii mi ngi ci suuf fii moo gën a jege doomu aadama te zalazil yi min ayatillah ah wa ma nursilu bil ayaati illa taxwifa xoolal mu ngi nii sa kaw mi ngi nii sa ron xarantay tànk moo ko gën a jege te it nag lu mu yëngu yëngu yëngu su paree sunu borom defaat mu mel na mu meloon loolu mooy dul quwwatil matin sunu borom mu ni mu sànni ca rawaasi ay montagne an tamida bikum ba léegi du maam wa alqa mu daal di wa basta fiha mu daal di wasaare ci kaw suuf min kulli daabba ci façon jur gu ne am na jur goo xam ni pour doomu aadama yi di ko lekk am jur yoo xam ni pour ñuy lekkante ci seen biir ñu di leen lekk comme jën am jur goo xamante ni ñoom dañuy dundee seeni morom ah allahu akbar lii lépp bassa fiha min kulli daabba te it wa ma min daabatin fi l ard illa ala allahi rizquha ñëpp yàlla garanti na seen wërsëg ku nekk la ngay lekk rek maanaam budget la boo xamante ni kenn du ko voté ndax lu ñuy voté lu ñu dul voté mooy loo xam ne mën naa am mën naa ñàkk am mën naa manqué ñu jox la ngay kaas suñu borom yembal na lépp ndax da koo defaat balaa ñuy ñëw ci kaw suuf ñun suñu borom mu ni wa anzalna ñu wàcce min assamaa'i ci asamaan si maan ndox mu tub ndoxum taw fa ambatna fiiha ñu dal di saxal ci ndox mi min kulli zawjin karim ci mboolem xeeti peer yi nga xam ne yu tedd la ñoom pomme banana tàndarma orange mandarine mango yi nga xam yépp ak yi nga xamut min kulli zawjin karim te it li benn waaye doon wax naan bu fekkoon sunu borom ak tële daa nekk ca moom wala ayaasu billah taala allahu an dalika uluwan kabira day tawat taw mu saxal ñiy bay kaani mu ne yéen ñi bayoon kaani bu ngeen récolté bu leen jihaad ndax damay tawal ñii bay banaana ndax kaani daa weex banaana dafa sax suukar waaye déedéet yow lu sayoon ci da ngay bay kaane da ngay yow bayal sa mbay rek yàlla def na ci ndox mi ay matière première yoo xam ni loolaay tax la war a saf day saf la war a lewet lewet la war a neex neex la war a naqari naqari suñu borom ni lii moo tax haada lii ngeen gis nag xalqullahi mooy def defu yàlla allahu akbar mbokk yi aaya jii aaya la joo xamante ni wallahi law صحت القلوب وملأت وملأت إيمانا ها لاقشعرت su fekkonte ni xol yi ngay ngëm yàlla gi mu war a duy duy na ko dëgg-dëgg aaya ji ci ay yëngal xol la bokk yàlla soo ko la taw bi mu taw màdd ñëw daal di daal di daal di lewet wala mu forox bee ñëw saf suukar bii saf kaani bii saf nàngam ah te yooyu yëpp ci menn ndox yusqa bi maa in waaxid ah sënwaan wa xayri sënwaan bii day jugee sax def leen dàq dàq rek dem comme ni tàndarma kóoni di def wa xayri sënwaan am yoo xamante ni duñ def noonu day am ay car yii saf yii saful yii njool yii gàtt yusqa bi ma in waxid benn ndox moo leen di nàndal wa nu fadd wa nu faddilu baadaha ala baadin fi l ukul lii lé léeg-léeg lii gën a neex la ca des lii saf lii safut allahu akbar suñu borom mu ni haada lii ngeen gis ak wasaaroot jur gi ci kaw suuf ak dundal yi xalqullahi lii mooy def defu yàlla bi léegi question ne mooy fa aruni damaa bëgg ngeen wan ma maada xalaqa lan la bind alladina min dunihi ñi ñi moromanteel ak yàlla subhanahu wa taala léegi nan bàyyi xiram yi xiram yi ñoom taxul may wax ndax koo xam ni boo nee koset mu ni jëppit nga ni cëpp mu ni këlëb nga wax mu ni zëmm du la dégg nga woo ko du la wuyu te yaa koy defar fi ni sugg su gaaral fa la naan sugg su gaaral du yëngatu kooku moom taxul may wax ki tax may wax kay mooy doomu aadama bi nga xam ne dañ koy jiiñ lenn ci cëri suñu borom bi kooku lu mu def moom deful dara moom bi mu juddoo ci ndoxam suñu borom bi lañ ko sangee moom bi mu bi mu màggee ci soow mi nga xamante ni moom la doon nàmp soow la moo xamante ni suñu borom mu ni min bayni faslin wa damin labanin xaalisun sawatan li shaaribin moom toujours rek moom ci yëpp yëpp jëfi suñu borom bi la doon jël ba toll ni mu toll kooku amul dara bi yow kii amul dara bi moom bi mu juddoo ndiwli ay daal daal yi matière première bi ñu ko defaree fii la ko fekk ci kaw suuf moom bi mu juddoo dañ ko muur morso morso bi ci simi fii lañ ko defaree ci kaw suuf moom soow mi ni nàmp suñu borom moo ko programme ci weer bi moom daal yi mu sol kawsu bi fii lañ ko defaree ah watam bi muy wax ci weñ yi lañ ko defaree mu moom dara de billahi amul dara dara la amul matière première yëpp suñu borom a ko moom xam nga xam nga lii moo tax maanaam doomu aadama buy jàng alquran dafay yeewu dafay wite benn jëmm benn jëmm du rëy ci sa kanam waaye ngëm yàlla gam yore mooy rëy ci sa kanam benn def def du rëy ci sa kanam parce que def defu yàlla rëy na ci sa kanam ba pare dinaa wax mbokk yi gis nga histoire yi ñuy nettali nit ñi di foto soo ko tiite ka jommee ka jaaxle ñooñu dañoo xamul histoire saxaaba rek anbiya ya ñooñu nga xam ni seeni histoire moo gën a dëggu gën a wér gën a baax ñooñu ku déglu seeni histoire ba pare vraiment lépp luñ la nettaleeti rek loola daanaka bay di defoon na bay di bay di defoon naka te nga ciy mën a teg ca saxaaba ya taabiuun ya wala anbiyaullahi ya gis nga de fa aruni ma da xalaqa alladina min dun ñoom lu mu di def waa ji ñeema lii rek la def ñeema lii rek dara defu ko moom li mu am lépp ci def defi suñu borom yi la bokk këram gi sax ci kaw suufa suñu borom si la ko teg këram gi ci kaw suufa suñu borom si la ko teg moom bu neexoon suñu borom léegi mu téye làmmiñam mi moom ci làmmiñ bi muy waxee suñu borom a ko moom ngelaw li muy noyyi suñu borom a ko moom tànk yi muy doxee moo ko moom wota bi muy war moo ko yow lool amoo dara bi yow sa jabar ji nga am sax yàlla dimbali nga am ko ne bu ko neexoon doo am jabar ci kaw suuf yàlla moom lépp moo tax wa ilayhi yurja'u al-amru kullu nit yëpp dañ ko war a delloo yàlla moo tax mbokk yi histoire Yuusuf histoire bu am solo la gis nga boo ko toppee di ca jariñu di ca jariñu di ca jariñu ba dem ci mujjantal ka ba dem ci mujjantal ka yaqub yéemu na yusuf yéemu na mbokk ya yéemu na kun tabal ca teen nga waroon a mën a dee dem ba lii lépp tege ci sa kanam yusuf xam ni su ma deful benn déclaration buy freiné nit ñi tey ñu ëppal ah ba muy jeexal dañ rabbi qad aataytani ah allahu akbar gis nga de min al mulki wa allamtani min tawil al ahadith yàlla lii man nit ñee ma ciy gis rek waaye man gisuma ci sama bopp yaa ma fekkoon fële génne ma ñu tëj ma kasa nga génne ma ñu ma nekk baadoola nga def ma buur tey jii yow yaa ma ko may jox ma ci fatari samawati wal ard wax a wax a wax ba àggal gis nga fi mu ne soo ma dimbaliwut yii nit ñi wax bu ma ko dégloo damay yàqule tawaffani musliman wa alhiqni bi saalihin yu am solo la nit ki bu mu gis boppam ci lenn yow bu fekkee sa bopp da ngay tere nga gis ko ci lenn kon nit ki ngay gis ci ay jëfam kon lii mooy tax nag alquran dafa yee nit ci moo tax sunu borom mu ni hada xalqullah lii la yàlla def tabaraka allahu rabbul alamin tabaraka alladi biyadihi almulku wa ala kulli shayin qadir tabaraka alladi nazala alfurqana ala abdihi sunu borom mu ni bali zalimuna li am dag mooy tooñkat yi nag fii dalalin mubin ñoom dañoo nekk ci sànkute gu rëy parce que dañuy fekk yëfi jàmbur di ko jiiñ keneen te fekk borom bi subhanahu wa taala moom moom lépp ñu ngi ñaan sunu borom mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain